الحمد لله الكريم ذي المنن على شغالي بفنود وثنل الحمد لله الكريم ذي المنن على شغالي بفرود وثنل الحمد لله الكريم ذي المنن على شغالي بفرود وثنل شكرته لأنه قد ذاقني لوطن بي ما قني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتقلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قد لي أن أتبعا على الذي من بمراته اقتدى في السر والجار يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فذان دينا وسيلتي لمالك الربيع محمد خير الورى سبيع وآلي وصحبه النجوم na doy waar fuuf moo am ci ruux yi muy crise ruux dafa am euh, te bokk na ci yii tax loolu mën a saafarawu mooy liggéey bii nga xam ni seq ngeen koog moom mu aju ci xam-xam ak pas-pas te lépp li ko ëmb mooy bëgg Sëñ Tuubaa gu wér goo xam ne dara raxu ko bëgg sëñ Tuubaa ni mu ko baaxoo leerale rek lu lu ñuy wax ci làmmeñ lu ñuy fas ci xol la di ko jëf ciy cër moo ci ëpp la ca gën a tuuti mooy baatu maa ngi sant sëñ Tuubaa wala jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Tuubaa dafa am wax am maana maana mi mooy seet lam gërëm nga teg ci sa tànk la nga xam ne gërëmu ko nga moytu ko daw ko furru loola tamit mooy seet ci jamonoom waxtu wu ko soob jëfandikoo coobare suñu borom ca kooka mu doon ab lantinoor boo xam ne day bàyyikoo fa mu war a bàyyikoo ci sëriñ bi di rogalaat ci xol yi loolu mooy bayit bi muy muy fara faral di wax wàcc al fuyuuda kalkali munira xuluuba xisbika wa astin nuura sëriñ bi noonu gisuñu ko waaye daa am ci ay arwaax yoo xam ne fa lay sotti la muy sotti def ci moom ab pas-pas def ci moom fasaaxatul lisaan saa bu yëkkatee kàddoom suñ borom ibbi xol yëpp la muy wax xol ya di ko téye di ko taataan muy des ci ñoom ñu di ca jéem seen kam kàttan loolu nag du fi jóg ba ilaa ajali musamman kon moom mi bokk na ci ñi sëñ Tuubaa di liggéeyloo ci loo ci ci ci fànn googu moom it lu mu ca mën a xalaat ak nu mu ca mën a doxe su amutoon ñu ko yittewoo woon yéen ni ñun moom bu boobaa tamit day mel ni liggéey bi amul njariñ kon fi muy bàyyeekoo moom mu ngi sant nit ñi di leen gërëm ci jëflante bi waaye ñëpp tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ci jëflante bi ndax li may xelleet am na ñu koy taatan te bu dul woon ñi koy taatan du jar muy xelli kon kon nag mi ngi leen di sant bu baax a baax de xam la ni seen pasteef bii wuute wut ak buñ ko doon tënk rek ci alxuraanu karim li suñ borom de muhammadu rasulullahi wallazina maahu yéen yéenay maahu yi sëñ ahmadu mii xam laaya ja la ca topp danga xam ni maahu mënta ñàkk ci gu dox jëm ci yàlla waaw ne ndax kenn ku ne ak ka nga sopp ëllëg fu mu fu dem fa ngay dem maanaam kenn ku ne ka nga sopp fu teg tànkam nga teg fa tànkam sëñ bi nga jéggal ma yaa may gën a xam loolu dafa am nitug yàlla ku mas a wax ne nit dina sopp ci sopp nituk yàlla ci dayo boo xam ne bu kooka nekkoon ca penku kiy nekk ci sow su woowee ku tudd Ibrahim faw moom mii nekk ci soow bi dana woo ku tudd Ibrahim ngir bëgg gi mu ko bëgg luy yëngu ci kële rek day jeexital ci kii fii kon nag da ngeen xam ni moom loolu mi ngi ciy sant sëriñ bi te xam ne ànd bi ngeen ànd moom moo ab soññ la ko jàppe ci diggam ak sëñ Tuubaa ci li muy def ndax xam ne dara roxu ko kon damay bañ a guddal Euh, tey ñaan ci barkeb xasida yi suñ borom bàyyil na ko fi bàyyi nu fi nun ñëpp tamit ba lii sëñ bi wax euh, isrif xuloo ba aadi an athaman nusrati wahdi bi shiban wa fityaana sans borom na nga jubale ci man boroomi bejjaaw ak waxambaane loola nag maga ca nañ ko ñaanal loola di yokk saasu ne bu kenn xeeb tamit ak ñaan nit moom lay la yéemu gi amul njariñ nit boo naree yéemu ci moom ñaanal ko yàlla ndax sëñ Baye Moustapha Samb mi laa ànd ak sëñ Abdou Khadir dafa ma mas a nettali ma daa dem ci sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir ne ko Moustapha bu amee sab xarit nooy def ak moom nee na ma ne ko lu ma am bokkoo moom lu ma xamoon mu ne ko taxawal taxawal boo amatee sab xarit ñaanalal ko yàlla mi ko sàkk te bàyyi kook moom kon na ko ñëpp di ñaanal te xam nañ ni niñ koy ñaanale tamit noonu lay ñaanale ñëpp kon noo ngi ñaan ci barkeb xasida yi mbooleem loo xam ne sëriñ Touba euh, yi bëgg na ko ci kum liggéeyloo noo ngi ñaan loola mu defal ko ko te nun ñi ñuy liggéeyloo ci moom mi nga xam ne dañ koy liggéeyloo tamit ci euh, arwaax yi suñ borom euh, defal nu tawfeex ba loola jàppandi ci moom nu ànd ko te lépp ngërëmi Sëñ Tuubaa rek ëmb ko ci saayir ak ci baatin dama mënut a wax tam tam tam baax rek waaye Euh, li mu wax matale na sëkk lépp kon nag ñi ngi leen di sant di leen gërëm tey ñaan ci bàkkaw yi ñu yàgg di ko ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala di siyaar itam mbokki taalibe yi nga àndal yëpp jaar ko ci sëñ Malick Sey ak sëñ Mor mi nga wax mi léegi ak sëñ ak sëñ Nas ñoom di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax te di leen sant bu baax a baax a baax a baax di leen dolle itam di leen delloo itam cofeel gi nga xam ne moo lëkkale te boole nu te muy mbooloo moo xam ne dañoo bëgg sëñ Tuubaa rek gis waa joo xam ne day yëngu ci sëñ bi ñu rafet njort ci moom bëgg ko itam ngir jëmmi sëñ Tuubaa loolu mooy li nu boole maa ngi siyaar itam sama mbokk yu baax yi nga xam ñoo agsi léegi di sëñ Abdou Khadir moom sëñ Khadim iliman ak sëñ Cheikh Khadim ak mbokkam mbokkam yëpp noo ngi leen di siyaara sëñ Ebo kàddu yi nga wax ci yokk dara nii ngeen ko defee itam ren wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax a baax te am nañ ci mbégte itam waxtu wu ne buñ sañoon di jataay ak yéen ndax ni ma la ko waxe woon ca jataayu njëkk yi mooy ki nga xam ne dalaa bëgg ngir yàlla jàpp la ngir yàlla kooku amul lenn loo ko desee lati ci kaw suuf lu may rek joxlanteeg moom delloo ko itam bëggoo gi bëggaat ko moom it te yàlla rek tax ay soppe nag seenu jataay moom du jeex te des ca doyal itam arab yi yàgg nañoo wax ne liqaaul ahibati liqaax yàgg nañoo wax loolu rawatina nag nun li nu boole mooy Sëñ Tuubaa te loolu mu xam naa ko bu wér xam naa ne murid yi Sëñ Tuubaa rek lañ bëgg mom rek lañuy xeeñtu mom rek lañuy dak mom rek lañuy wut mom rek lañ daw jëm itam Sëñ Tuubaa nak ginaaw du ñepp ko mëna tek teg bët tax ñi melni man bu len seenu bëgg gandé luñ gis mu cey xoy rek wala lu koy nuru wala lu koy wote wo rek dañuy tak lolé loolu moo indi moo moo indi maanaam soppe waaye nag maa ngi leen di xamal ne xëy na li ngeen yaakaar ak li ngeen li li ngeen li ngeen li ngeen yaakaar ak li ngeen jort ci nun man xam naa ne moom moom moom xajuta àggu foofa waaye nag moom bëgg gi Sëñ Tuubaa moom noo ngi ci nab nabi ndax sëñ Tuubaa mooy koo xam ne moom nun dañ koo bëgg rek te yàlla tax <laughs> dañ ko bëgg rek te yàlla tax yàlla defit nu judd ci biir njaboot goo xam ne ñëpp dañoo bëgg sëñ Tuubaa sëñ sëñ ëboo mi sama mbokka nu bokk baay bokk maam mën na ne ndax suñu ñaar ñaari maam yi ñoo bokk waaye njaboot gii sëñ bi feeñ yàlla def ñoom sëñ bi ji leen teraanga joo xam ne bu dul woon dara it dañ ko war a bëgg te yàlla tax teraanga jooju it yëmut ci ñi mbokkal rek waaye mbooleem murit yëpp àgg na ci ñoom sëñ Tuubaa daana wax ne daa bëgg murit yi dénkaan yi muy def rek wax ne bëgg gi ma leen bëgg moo tax ma leen koy dénk te sëñ Tuubaa bu la xasee bëgg yow doo lu may delloo ko cofeel googee cofeel nak ak bëgg moy li gëna reuy mom moy marchandise mi mi mi mi mi a dox ci tay ak moy war way wi gëna gaawit ci dox jëm ci yalla ndax jaamu yalla yi goor dëgg mo cey mëna a wëy té lu délu gënaaw mukk du ci mukk du tayel mukk lolu mom positif boba goor ko yu bax yëpp jamono jii jamonoy tàyyal la daanaka jamono yu bari di la fab bi ak yuy xajamal sa xel ak sa xol ak di lëndëmal sab dox ba tax na mboolem yu baax yépp bari na waaye li gën a gaaw daal di war waay yu gën a rëy mooy bëgg Sëñ Tuubaa ndax bëgg moo lay bàyyi ci ci mbir mi bu fekkee da ngaa jàpp Sëñ Tuubaa ngir leneen bis dana ñëw lolé am ci kula ci xajamal mba kula ci indi sik sak fekke dang ko bëgg nak mom dara du tax mom mom sa bëgg xajam bëgg moy li nga xamne mo la mëna bayé ak sëriñ bi ba bu ñepp demone yow nga dess fi ndax non tuba touba dañ ko bëgg rek ngir ne moy sëriñ tuba dekkun ci mom lenn amul lenn lu ni xaar ci momit ni ma koy netlé te xamna deg ngeen ko batay sunu bay bu baax bi sëriñ abdou samad day wax ne yowmal xiyaam sëñ bi ak mbaaxam àgg na ci mën naa wax suñu borom ne ko mbooleem jaam ñi liñ def ci ay safaan nañ ma ko sëf ñoom ñu tàbbi àjjana man ma tàbbi sawara waaye neen day wax ne buñ ca àggee sawara soosee sëñ ne moo may dàqal àjjana man ndax nee na àjjana bu fa sëñ tubaa nekkul sawara koy dàq <laughs> sawara ku ne xam ne neexut waaye jege sëñ tubaa maanaam maanaam dootoo yëgati sawara dañu ngi sawara te dara du naqari ci yow gis ngeen euh, soxna yooyee daje woon Seydina Yuusufa alayhi salaam yor paaka di dagg seeni loxo falamma raaynahu akbarnahu wa qattaana aydiyahunna wa qulna xaasha lillaahi maanaam taar bañ gis xam nga kenn xamul nu mu tax ñu dagg seen loxo yor paaka dagg sa loxo te yëgoo mettit bi ba Seydina Yuusufa jaar ba jàll ñu doo a yëg na seeni loxo dagg te kooka xaajub taarub yonente bi lañ ko jox moom Seydina Yuusuf alayhi salaam utiya yuusufu satral xusni loolu la yonente bi wax te yonente bi moom léppi taar mi ngi ci moom te Sëñ Tuubaa rasulullahi la donn ci wet yëpp tey ki donn dégg nga alal ji li mbay ginnaaw ay mbokkam a ngi fi <laughs> mu baax moomee ki ko donn ci wàllu alali adduna yi xam nga dana wuteeg ki donn benn waay boo xam ni maanaam yorut lum dépensé tey ji yonente yi itam ni ñu leen di donne noonu la wutee ka doon rasulullah yi day wuteeg ka doon keneen moo tax suñu tubaabam yàlla defal na ko ci taaru biir boo xam ni fu mu mën a nekkee bu fa nekkee jàmb képp lañuy ñuy yëg soo yàlla <laughs> jàmm rek la ñuy yëg ba tax na sa war a nag moom duñ fa dugg moom buñ fa duggoon ni nekk fay sant yàlla rek mu soppi ko àjjana ci noonu <laughs> incha allahu taala waaye duñ fa dem mukk ndax suñu tubaabam loolu waxe rek la waye liñ jiblu moy seigne touba moo mat bëgg moo mat japp waye bëgg seigne touba nak bari na lu mu laaj dulu dulu yomb itam man nah, dulu lu noppale itam ndax bëgg mom du la may jamm du sa xel du gawa dal ndax waxtu wu ne la ngay ragal moy sori sorente ki nga bëgg mba nga mba mba nga mba mba mba mba dara xajamal sa sa digg ak mom bëggit da laaj lepp lu laal ci koke nga bëgg ko moo tax sëñ Tuubaa noonu dañ ko jàpp jàpp mbokkam yi jàppu dégg nga mboolem ku laal ci moom rek ak nu ca laalee nu jàpp ko te yàlla rek a tax te duñ ci am xejj ak seen duñ ci am ku ñuy jiital ak mbaa ku ñu mu jël kenn ku ne ci noonu nag da nga amub sëriñ moom te sab sëriñ moom kenn ku ne daa war a jàpp ne sab sëriñ moo faw ko ñëpp di feeg jàppoo ne sab sëriñ moom moo jiitu maanaam mooy ki gën a mat ci jaam yi doo ca gaaw a jariñu waaye du tax nag nga woyofal benen serigne wala kenen kon lol rek moy li nu boole moy bëgg serigne touba serigne touba dal nan ngoy ci mom ndax jamono da gëna a gëna xajam bari yu fàbbee bari yu yàqle ak yu yaq jëf ba taxna li nu mën dimbul rek moy nu ngoy ci mom mooy ci mom bëgg ko te yalla rek tax lepp luy mandargal bëgg sëriñ Tuubaa nu nekk ci lolé lepp lo xam da daa sorenteeg bëgg sëriñ bi nu sori ko lepp lu nar xajamal suñu bëggit ñu ne ko fa ñuk te sori ko jarna na lu ñuy sax nga bañ ci dara ndax lo xamni boko boo mu woyofal sax bëgg ci sëriñ bi ëpp na déglu te murit day am fu mi tollu fo xam day mom xam nga sikk sàkk beeg dem beeg dikk beek bii tànk ne ci biir bi ne ci biti loolu xaa murit bu ndaw a koy def waaye dëgg-dëgg day am fu muy toll day tànn boo xasee tànn nag àdduna dund gi daa gàtt jëratul ngay taxaw ak lenn wala ngay bàyyi xel lenn wala ngay dégg nga dara di la yeexal sab dox lépp lu ko nar a xajamal mbaa lu ko nar lu ko nar a yeexal da nga ko naan ñukk fa suuf kon loolu rek loolu rek moo a boole ma di leen sant bu baax ndax man jëpp ma ne sax kenn war na maa jàpp ngir sama doy waar ak sama ñàkk solo ak sama ñàkk yitte waaye maa ngi leen di bàyyeeg sëriñ bi rek sëriñ bi moom mi nga xam ne moo tax nu ànd maa ngi leen di bàyyeek moom ak sunu borom bi nga xam ne nag mooy fay maa ngi koy ñaan mu fayal ma leen gën ji fay te taxawu leen te wuutu leen ci seeni jëmm jéego yi ngeen dox ak kenn ku ne fa mu jóge ak dëkk yu sori yi ak yitte jam yam bay ak nim def ba ñew nga xam kenn ku ne nga def ba ñew yow rek ko xam lolu ma ngi len ci eh, balu ak di len ci jéglu waye di ñaan it suñu borom bu mu def ko muy buntu biw ci yeen te fay len ci ngeen ji fay daraja Sëriñ Tuubaa si yeboo ma ngi lay yobante ci mbolo mi ne xamne bu baaxa baax jataay bii nag kon moom seenu jataay lu leen neex rek nu ngeen neex rek dañ koy doxale xéwal yi ngeen dajale itam sëñ boo loola moom maa ngi koy jégalu moo ngeen a ñëw rek nu seet lu fi ci ay ay ay teraanga nu nu nu nu jëflante koog ay ay xéwal indi ko loolu moom it rëy na lool ci noonu. incha allahu taala itam am na daara ju ni taxawal fii ci dëkk bi ba bërëb bi sotti na ñu bëgg faa tabax ay bërëb yoo xam ne ay nekkuwaay lay doon. ngir ña fay ne ci lool lañ leen koy defal bu soobé yalla dem bi cheikh ibrahima mi wax la ne ko lé gaay dajalé mom du luy dugg ci du lu dem ci ay ay mag magal <laughs> lool mom dañ ko duggal ci daara jee te ñaan yalla mu nangu ko te ngeen ñaanal lu ci itam lañ fa yéene lepp yalla sotal ko daraje sëñ tuubaa sant naa bu baax baaxa baax baax waxtaan yi ñuy def fi ci kër gi bo ñewé ba fekk nu fi maag gone yi koy def léeg-léeg maanaam mi ñaar fukk nit du ko mat waaye bu doon maag ñoom képpit du génn sun sun sun ruq si ko jël di ko tasaare ci anam goo xam ni dafa mel ni dayen ko defub liggéey bi set ma dajeeg nit mu ne ma dugg naa ci groupe bi di ma wax lam fay diglu nga xam ne bis bu set ñu dugal ay mbir te loolu laaj na waxtu laaj na dégg connexion bu bari ak alal yo xamni yene ngi ko ci def te lolou wóor na ma yalla rek tax sikku ma yalla rek rek motax ndax yeen ñi ñi koy liggéey ñu bis bu set amna ño xamni xam de rek nu bëgg a ma ak mom way dana jël ay bis ndax dana juyo ci téléphone woo duma jot moko way ko loolu bu doon keneen sax gis na boom bu yàgg man damay ko ñàkk yi té doy war amna mbokk yo xamni ne nañ mo bu yàgg ngir na xey nañ wo jotu ñu dé waaye yeen waxtu ni loolu lepp taxu taxu ngeen ngi loolu nak day wone li ngeen def ni yalla tax te loolu nak non rek la man la ko bëgg sax nak ndax non liñ ci jotta yëngu itam yi dañ koy def ngir yalla rek waxtan yi amna dir bu yak waxtan wuñ ci def duñ ko sax wat ndax bañoon mu ki ginnaaw bi dañ ci wat yenn gis ci ay te ak mir yo xamni xeyna na aaji na jubanti loolu motax tax ci bari jukki diglu wat ay bëggun ci woon sax diko gessu geesu lu ngeen ci am rek ci luñu wara jubanti ngeen dinu ko wax amna lo xamni kon mom ginaaw mbolo maaj ñek gëna gën lu may def dinaa ko tàmbaliwaat sa ñëboo mooy laaj yi nga xam ne moo jóge ci soppe yi xam na sa yëboo moom daaraam jee moom daa baax rek waaye mënoon naa am sax ngant waaye bu neexee sëñ sëñ Malick mi nga féetale ko mu koy dajale weer wu ne ñu am ci limu ay laaj yoo xam ne dañ ma ko yónnee moom moom nu gëstu ko tontu ci ndax loolu gis naa ne amoon na solo am na mbokk yi sax ñu ko tàmbaloon bind yéen ci jotoon a def bu ko dee loolu kon sëñ Malick mën na si ko tàmbalaat weer wu ne ñu am li ay laaj yoo xam nag moo ko yónnee nu nu jàppe ko ci liggéey bi leen xamal ne nag liggéey bi moom liggéey bi Sëñ Tuubaa la loolu rek lañ ci fas loolu rek lañ ci lañ ciy def amul lenn loo xam ne itam donc ko ci dàkk mbaa luñ ci wut mbooloo mi nga xam ne ñoo koy dugal ci ci YouTube yeeg yooyu sax ñoom Sëñ lu ñoom ñi wax naa leen ne maanaam seen ya ñuy def lañ cay joxe ndax am na luñ ci waroon di joxe ci xaalis waaye dama leen loolu bu leen ko jël nañ ko def seen yoo xam day liggéey nii rek ngir yàlla moo tax daanaka boo koy diglu boo ciy diglu benn li du ay publicité yooyu du ci bari xam nga <laughs> loolu loolu tax loolu nag yéen ci loolu rek ngeen di dox ndax liggéey bi dañ koy def ngir liggéey bi Sëñ Tuubaa rek buñ ko defee nag lépp lu ci yàlla dogal ginnaaw ba rek nu sante ko ko bu ci kenn jariñoo rek alhamdulilah la wax waaw bu ci kenn jariñoo rek nu ne alhamdulilah te def ko addi Sëñ <laughs> maa ngi leen di sant bu baax a baax di len gërëm di len dolé japp di fas kóllëre gi sama digëng yeen di len xamal né ci sama xol mom yalla def na né yeen la ci wétlikoo jotta yeek waxtaan it ñi ma xam ni xam nañ ne ak man ku gawa tayel la ta bari ta ko nit ku day war la dal ko ñek solo ku day war <laughs> wayé li ma ci bayyi dëgg-dëgg moy moy moy seen seen yitté ji ni lé rek ma nara tayel way buma xalaté rek yitté ji ngeen dox ni dina gëna gurgul góorgóorluwaat ndax xeyna dana danoo waye di waaye lu bari bari nak manan ko def fi ne bari lo xamni yalla yàlla defal na ci tawfiq delu waye ak téere yu bari bari yalla def na nu am ko yeey da ngay jëkkee ki ñu yëndé la ko sëñ modou Touré mu baax moomee ndeysaan moom moo wutuloon ay delluwaay yu bari bari bari yeey nak fi ne ay jotaay yu bari bari fi ne man ko def ci ay fan yo xamni da nga ci def ay gëstu yu xoot lool nak ñak tayal rek xana ak mo moo ko tax tax di waaye nag ci ci ci mom no no moom incha allah danañ gën a soññiwaat danañ gëna a waat waaye ngeen xam ne yéen moom moom moom sama digg ak yéen doxaluma ci dara waaw lu ngeen bëgg ci manit ci yéen la des واغفر لمن أمرهم بي جميع ولجميع من آلهم على بنائي الذي بفضلك عتلا واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير لكنا ولتجعلنا ذات الامتلاء نور ورحمة بلا انتهاء ورثها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على تمالي وليجد فيه بعلم ينفع